yow normalement. Mhm. par par par par par par expérience. donc joxuma la la sax loxo saa yi nu mu demee nag. sant yàlla. mais yow duñu la gis lu bëri ah. bon gisatuma la si taan lu bëri daan naa la gis lu bëri mais gisatuma la. waaw ah, dama daw taan bi. da nga daw taan bi ah dama daw taan bi. mais Pape. Mhm. réflexe bi nga war a njëkk am. Mhm. boo duggee boo duggee oto yow lan la war a doon. Euh. boo duggee si oto rek ban réflexe Papa Ndiaye soirée laa wax de waxuma n'importe Papa Ndiaye soirée bu duggee ci oto ban réflexe wala war a franchement pour dire pour être honnête a mhm. avant doon na ma poser problème. mais mhm. léegi ça va. su ma xam su ma defee confiance gi dawal moom. di dawal rek ça va. waaw ça va léegi li ngay njëkk a def moom mooy. takk sama ceinture. waaw ah. ah. mais ni ngeen ko defee fa à la sénégalaise. à la sénégalaise ah. jël ko takk ko ci ginnaaw non non dañu doon nettoyer booy bi takk ko nii mais man ku dugg sama oto. <laughs> saa yi da ngay takk sa. kon baax na ah c'est bon ah. micro baa ngi génn. na nga def. ça va alhamdulilah yaa ngi ci jàmm ça man c' la première fois ñu gisee. dëgg la euh, c' est vrai que dañ koy dañ lay suivre quoi. Mhm. je me euh, expérience bu ma njëkkoon am. Mhm. ci yow. Mhm. moom mooy euh, je pense que am na benn match bu ma demoon cette année. stade kii nu mu tudd amitié. Léopold Sédar Senghor. et j' étais vu quoi. je me que dama j' vraiment impressionné. surtout parce que je j' étais trouvé très technique. dama doon wax sax ni mais kii normalement pour man. c'est un numéro 10. xam nga par rapport ak yenn yenn c'est vrai que bon dama gis que ni sur la défense tu fais un travail bu am solo mais li ëpp solo mooy je je je te trouve très technique quoi par rapport ak poste bi ngay joué est-ce que loolu moo doon sa poste de prédilection. Hmm. mën naa wax ne noonu laa loolu laa la terminé sama sama sama sama formation. parce que jàmbaar boo doon xool ak central laa doon football. Mhm. mais bon après ñëw ma dem sélection équipe nationale cadet. Mhm. si lañ ma changé def ma arrière gauche. Mm-hmm. après man je sais pas la coach yi gis si man ba ba ba teg ma arrière gauche. Mm-hmm. mais bon c' est un c' est un poste qui me réussit jusque maintenant waaye bu may football foofu moom je prends du plaisir. mais amuloo benn benn vocation euh, offensive c'est-à-dire que tu tu ne penses pas que que euh, boo nekkoon si kanam di nga gën a mën a productif. Hmm, je sais pas parce que Jeux olympiques yi Mais ça s'est très bien passé aussi parce que j'aime bien jouer au ballon. Voilà, j'aime toucher le ballon en fait. Ah, euh, tu es euh, très technique, hein Machallah, santé Allah. Ah, ouais, très <laughs> technique. Mais, quoi. mais j'aime bien jouer au ballon en fait. C'est plutôt ça. mais da ngay xare aussi. ah da ngay dem ba jeex de yow. waaw mais loolu sama liggéey la. dañ ne dañ ne défenseur kañ da ngay défendre. il faut savoir mais yow ñaata ñaata ñaata kii nga def ko ñaata J'ai fait Lille, j'ai fait Reims, mais j'ai fait Crissa Palace aussi. Ah ok, tu je suis là-bas en ce moment. Léegi physiquement, comment tu te sens Je me sens super bien, je me sens en forme, sauf que voilà, c'est c'est les matchs qui font la différence mais bon, ah man dama doon entraîner équipe yi, je me sentais bien, j'étais prêt à être sélectionné tous les matchs mais bon, yàlla dogal na ne mhm. euh, sama chance moo jotagul wala sama heure moo jotagul loolu laa gëm. mais bon je travaille je fais le travail qu'il faut après am na ay hiérarchie yoo xamante ne nii mënoo leen sauter si milieu professionnel bi. parfaitement parfaitement. donc voilà da ngay xaar rek sa temps bu jotee nga dugg wane ne t'es toujours t'es t'es t'es encore là. ah ok mais mais mais est-ce que tu as joué des matchs ren ci fin de saison bi en Angleterre. Mmh, j'ai joué des matchs euh, quelques j'ai j'ai joué le premier match en première ligue. Mmh. j'ai joué des matchs de coupe mais malheureusement. dañoo egg janvier. Mhm. le match de coupe qui devait m relancer et j'enchaîne des matchs jusqu'à la fin c'est je je me suis fait je me en fait xam sama sama sama loxo bi moo summeeku woon. Mhm. ci benn match ah, mais est-ce que tu penses que. là là là. Pape Ndiaye soirée bi ñu il y a quelques années. Mhm. est-ce que même Pape Ndiaye soirée bi. physiquement est-ce que tu à 100 pour cent est-ce que tu penses que par rapport ce qui t'est arrivé li ñëpp xam. Euh, est-ce que, est-ce que tu, tu, penses que tu as retrouvé euh, ta forme de, initiale quoi, pour, Franchement, loolu nit ñi ñoo si douté wu parce que gisuñu moom football mais boo demee tey club ba nga laaj sama entraîneur Roy Hodgson lui il sait très bien que je suis prêt et que je suis prêt physiquement pour jouer pour match entier. Ah, loolu moom xam na ko man je suis conscient que sama sama niveau physique bu yokkul instant toll nii mënul wàññeeku. donc euh, ce qui ce qui reste à faire c'est de juste jouer. lan nga jàng si si si si ah, si ndogalu yàlla. lan nga si ah. jàng lan nga si jëlee comme jàngat. waaw li si jëlee comme jàngat bëri na trop parce que c'est un enchaînement des choses parce que boo xoolee sama papa moment boobu. Mm-hmm. dañ ko dañ dañ ko dañ ko yóbbu woon Paris pour faj ko parce que il était gravement malade. Mm-hmm. et puis moment boobu affaire bi dal ma sax c' était il était en train de faire en en chimiothérapie. Mm -hmm. donc euh, le dimanche le vendredi ma mère s'est cassé la jambe ici au Sénégal et que le dim le dimanche moi j'ai fait l'accident donc boo jugee ci yooyu c' est sûr que y a des choses où, dans la vie qui vont changer obligé. Mm-hmm. parce que après au final j'ai perdu mon père. Mm-hmm. que deux mois après je l'ai perdu. donc voilà donc man juste euh, li ma gën a xam nga yàlla moom lu mu def rek am na lu tax mu def ko parce que temps boobu ma jël pour pour pour digérer yooyu noonu yëpp temps boobu ma jël pour faju ci tamit temps boobu yooyu noonu yëpp am na ay jàngat yu ma ci def si àdduna bi tamit xam naa ne àdduna amul solo te li tax ñu nekk fii ñun sax xamuñu ko mais dañuy def lu ñu mën pour pour pour pour ëllëg lu ñuy fekk ji. parce que mais mais comment comment tu l'as vécu euh, ci ci instant tey bi quoi c'est-à-dire que est-ce que à un moment tu t'es dit que euh, c'est c'est fini ma carrière c'est c'est fini je ne vais plus rejouer au foot. non j'ai direct pen euh, sur le coup j'ai direct pensé à ma jambe parce que dama xam gisuma mënu moon amoon force si sama sama tànk bi ma ne mhm. peut-être que c'est fini et j'ai pensé à être même dans les <laughs> nar a nar a fini chez Chaise parce que boo gisee exemple Kevin Aner mhm. kooku noonu si chaise la finir donc man du ma nit rek laa mënoon naa noonu donc man instant toll nii boobu moom c' était un moment douloureux mm-hmm. parce que booy xool tamit yi am yëpp si famille bi tamit c' était quelque chose yoo xamante ne nii mënoo mënoo mënoo passer au dessus succession d' événement quoi voilà voilà succession d' événement boobu noonu nag moo tax temps bi ma jël pour digérer ko mm-hmm. euh, maa ngi siy sant yàlla parce que mm-hmm. tax na tamit me donne qui me donne aujourd'hui. Et, et, et, si c'était à choisir, j'allais choisir la personne que je suis aujourd'hui. Mais la personne que tu es aujourd'hui, mm -hmm. euh, lan mooy différence entre la personne que tu étais hier. non juste réaliser parce que booy xool man je suis parti jeune. Mm. Euh, de chez moi de mes parents dama demoon jàmbaar à 13 ans. Mm. fa laa nekkoon je suis parti en France Lille laa nekkoon pendant huit ans et quelques. Mm. et que j'ai tout a été très très vite venu euh, euh, xam nga lu ñëw loo xamante ne ni jotoo am temps réaliser la moo xew mhm. man loolu moo ma xawoon dal un peu mhm. donc bu yooyu yëpp amee da delluwaat base bi jàngaat mais da nga ko gàddu wala gàddu woo c'est-à-dire que est-ce que xam nga des fois mën nga nekk jeune mais mhm. je pense que ci milieu football bi des fois c'est des choses qui peuvent arriver affaire dafay gaaw ba nga xam ne. Mhm. Ah, il a tu la le succès. Mhm. tu as entre guillemets l'argent. Mhm. tu as l'attention il y a télé il tellement de choses. yuy tourner autour de toi. est-ce que moom laa wax ne est-ce que loolu bu la bu la est-ce que am nga si benn regret si comment tu la tu ni nga ko dundee ko est-ce que est-ce que tu n'as pas benn benn même si tu es toujours actif euh, que su doon démb doon tey dinaa doxalee neneen. Mmh. Non, je je dirais je dirais pas ça parce que je mais malgré tout, j'essaie de faire les choses bien. Mm. Il y a pas euh, trop de différence quoi, tu vois ce que je dire. Mais sauf que moment moment yooyu noonu am na yu bëri doo ko mën réaliser. Mm-hmm. am na yu bëri yoo xamante ne nii bu la bu ñi ñi ngay àndal buñ la ko dul wax. Mm-hmm. yow mënoo ko réaliser. te boo amee ay ndok-ndok des fois. Mm-hmm. da ngay def recul nga xam ne. ñii nii par exemple am na yenn yu bëri ñu doon fàtte wax la. Mhm. te yoo xamante ne nit ki moo koy xamal boppam. mais est ko doon